parce que bo bo seetloo. Ah, am bo hmm. boo seetloo am ndaw yu hmm. Japon hmm. parce que lu ñu doon def dañu sensibiliser la population. à Diourbel dañu doon sensibiliser la population. Euh, ñu dem bisu bindu ci liste électorale à travers notre programme wër ndomb. donc maa ngi jaajëfal waa GPS euh, du département de Kër à travers son coordinateur Lamine Diallo. ñu ngi def liggéey bu am solo. donc ñun en tant que passé, ñu ngi sur le terrain. yéen ñu gisul parce que Ousmane Song, rek ngeen di xool moo mais Ousmane Sonko personne mais en personne message bi fi lay gën a message mu ngi jàll parce que Ousmane Sonko dafa ni dem leen seeti nit ñi wax ak nit ñi te ñun ci lañ nekk mais en personne Ousmane Sonko euh, euh, euh, Ousmane Sonko wax ko si làmmiñam ni dem ngeen bindu ji si li nga xam ne que moo liste électorale exactement est ce que tamit yëf yi du war a gën nekk impact que ko non non Ousmane Sonko wax na wax na ci télé ñu bu dégg ko. Hmm. wax nañu ko ñun ñu koy doxal à travers suñu programme Bour Ndom nga nañ ko depuis des semaines ñun ñu ngi ci ñu ngi sur le terrain ñu ngi sensibiliser nit ñi mais état du Sénégal moo waroon am loolu c'est son euh, c'est son devoir de sensibiliser la population wax leen ni mm. génn la mm. ngeen bindu ji mm. ku amul carte génn nga defari sa carte loolu c'est le c'est le rôle de l'État mais parce que xam na combat la benn arène si la nekk te euh, tous les moyens sont peut-être pour euh, nga euh, liquider sa adversaire mais ñii xam ne ni Ousmane Sonko leen àndal xam ni aussi maire yeeg paa yi ñoom dañoo dañuy fidèle si régime bi nga xam ne itam day nekk en place donc est-ce que loolu du arrangement am donc Ousmane Sonko waroon na ko mën a def à la place de l'État déedéet c'est-à-dire bul ne État arrangé parce que État dafa mel ni weer bu dee muy fay fonctionnaire buy fay fonctionnaire du xool. ku nekk parce que maanaam quand on parle état dañuy wax benn bokk yaakaar ak ñi nga xam ni itam ñoom ñoo ko daal di jiite. waaw moom laa expliquer ah. dafa mel ni weer bu dee. Hmm. Euh, le payeur bi nekk au trésor di fay. les hmm. les fonctionnaires. mënul hmm, ne kii Pastef la nekk wala kii benn bokkaar la nekk. day fay rek ni mu ko waree noonu la waree état mu sensibiliser la population bi nga xamante mooy la population sénégalaise. ko amagul carte mu dem bindu ci. loolu de devoir état la te da ko war a def mais ñun xaaruñu ko ci ah ñun ñu ngi sur le terrain ñu ngi sensibiliser nit ñi parce que aussi en politique boo bëggee gagner il faut le faire de manière fair play il faut le faire de manière fair play malheureusement les gens ne euh, ne convoquent pas l'histoire hmm. parce que am na benn anecdote bu ñu ma nettali euh, benn benn allemand mi il a décapité son propre frère parce que dafa dem bett à benn village rey fa ay nit. Hmm. mu ne ko ñun duñu bette kuy xeex da nga war a jàkkaarloo ki ngay xeex. Hmm. mu xam ne yaa ngi ñëw di xeex ak moom donc xoolal loolu bu amee fii Sénégal au foota. Mm. kon loolu war nañ cee mën a jàng. Mm. boo nekkee di politique il faut le faire de manière fair play. Mm. bu dee da ngay combattre aussi il faut le faire de manière politique mais di def yëfu-yëf ay loolu loolu rafetul. rafetul carte Sénégal Sénégal droit la ku ne am carte d'identité droit la ku nekk am carte électeur

pour nit ki yow bu ñu la dénkee dara. Hmm. nga koy doxal. Hmm. sa digganteeg yàlla nga ci war a gën a xool ko digganteeg nit ki. Hmm. c'est pas parce que maa ñoo bokk parti. ko dama la war a defal lu ne. c'est pas parce que maa bokkuñu parti. loo bëgg dama la ci war a koñe. maanaam fi ñu ma teg ma ciy doxal. te sénégalais teg ma fi. ma koy doxal te Sénégal yëpp war ci gis seen njariñ dama koy def jël yàlla teg sama kanam. te si yaa ngi dégg boo jëlee yàlla teg sa kanam nag. nit ki nga jàkkaarloo dootoo ko gis. parce que aussi nit ñi dañuy maanaam dégg c'est que boo gisee mu dafa ni dafa bu résumer le projet de passif. Hmm. mais nit ñi ñoo dégg waxu ngañ hmm. dafa ni bu le projet de passif, mooy fexe ba nit di parce que c'est le plus en plus gars di leen taxé non non du question arrogant xam nga aussi nit boo ko bëggee mm, li ñuy wax que euh, euh, ku ku kuy sa du set hmm, c'est-à-dire euh, le passif amul fenn parce que aussi dinañ la wax idée. di hmm. bu ñuy wax ak yow dinañ la wax idée dinañ la wax xam-xam te dinañ la wax li mën a nekk. est mais comme que amul feneen fu ñu ko mën a jaar ci diabolisation rek moo fa des parce que boo seetloo Ousmane Sonko terroriste la Ousmane Sonko salafiste la ay jabaram dañuy muuru mais jabar mais mais jigéen biy muuru war na nekk cas au Sénégal <laughs> ah jigéen biy muuru ñu ne Sénégal quatre-vingt-dix pour cent de musulmans. Hmm. nee kii jabaram day muuru lool war na mën a nekk cas Sénégal est-ce que donc loolu yëpp boo ko déggee mooy dañoo bëgg Euh, jaxase Ousmane Sonko ak sénégalais yi. Mm. te loolu mënul ne. Mm. parce que lépp lu ñuy def rek. Mm. Ousmane Sonko nit ñi di ko di gën a bëgg. loolu waroon na tax opposition euh, waroon na tax camp présidentiel dans la seen xel. te gëm yàlla xam na ni le combat est perdu d'avance. le peuple gagnera incha allah te dina jël Ousmane Sonko en 2024 jox ko réew mi bu neexee yàlla alors euh, si loolu euh, propos yooyu non, nañu si ëpp ñuy naan pour nga jëm daal di koy retirer euh, yooyu itam waa Pastef ban position ngeen si war a mën a am ak rebondissement yi nga xam ne war na ko daal di mën a Sénégal exactement. non non warul mën a jur benn rebondissement. parce que aussi parce que si instant bi tout le monde en parle. ñi ñu koy tirer à la longueur ñi aussi peut-être ñi nekk tout de avec lui mais instant bi est-ce que warul daal di jéggalu non non non lo loolu kenn du ci jéggulu parce que pour man. kenn du mm. ci jéggulu parce que mm. loolu. soo ko mën ay précision maanaam li mu wax dafa gàttu torop mu indi ay précision exactement si fan faanu lay waxee. parce que xam nga dafa résumé. Mm. xam nga dafa résumé. bu ñu waxee le projet passé bu ñu ko doon résumé. xam nga nee naa la yow bu ñu la tegee ci poste ngay liggéey. yàlla nga war a xool mais war a xool. ka ngay jàkkaarloo. mais projet passé suñ koy résumé ñu ne. Euh, nit ñi di bàyyi jaamu yi waaye bàyyi jàmm suñu borom. Mm-hmm. maanaam ña nekk tey si gouvernement bi dañuy topp si kaw ki na xam ne moo di président Macky Sall exactement. Mm-hmm. fu mu leen xooloo ñu xool fa maanaam. Eh, mais mais looloo am <laughs> loolu looloo mm. am. moom looloo am. Mm. moom moom moom laa la wax ñoom. Eh, yi jàpp nañ ne même bu ñu jortee ne Macky bëgg nañ ku la dóor yow. dañ mm. lay dóor. bu ñu jortee ne mag yow bis bu ñu la dóoree Macky kontaan. fii lañ la fekk dóor la. <laughs>

y dafa un euh, euh, euh, dispositif au niveau de la. mais est-ce que non non question parce que aussi aussi rapidité pour vote non non du question de la ak c'est la loi dañ hmm. code électoral. Hmm. à moins de six mois des élections à moins mon un consensus général. Hmm. par exemple nationale pour dindi. immunité parlementaire Ousmane Sonko dañ koo convoqué sachant que am na immunité parlementaire mu bañ ñu doog a dem jëli dindi immunité parlementaire am ça veut dire que régime bi tàmmuñu dox ci yoon parce que xamuñu ko ñoom bu ñu bëggee dara. Hmm. dañuy jóg rek foncé. Hmm. lii la bëgg. Hmm. dañ koy jëli duñu xool dañu teg ci yoon pour am ko wala duñu ñu tegu ci yoon pour am ko. alors euh, euh, justement euh, dañuy daal di wax si leneen mooy li nga xam ne moo di gasa gasa bi nga xam ne woote woon ngeen ko fi nga xam ne moo di toanu mhm. est-ce que jàpp tamit gasa gasa baa nekk def effet effet yu xam de day contre-productif jëm si nga xam ne moo di dégg ñu askan wi moo ñu mën a ñu daal di exactement sur la communication d'Ousmane Sonko est-ce que nekk ko tamit trop de communication tue finalement la communication. non non non non. trop de communication tue la communication waxu ragal la waxu bon c'est pas ragal en tant que xeex je veux dire parce que dañ la jangal à l'université rek liñ la jangal dang ci wara teungu comme comme des airs il faut pas avoir peur. mais parce que tay so waxe li suba nga wax lële euh, mais tamit tey soo waxee lii suba nga wax lële suba nga wax lële finish dañuy am benn crédibilité. non non non je euh, m'explique côté askan je m'explique on dit que terreur communication tue la communication. Hmm. Ousmane Sonko est l'un des policiers qui communique le plus au Sénégal. Hmm. lu ko jural mom la nit ñi gëna top topp ngeen bëgg mu nopi du nopi de day wax day wax ba suba di sang day wax de te bu bu wax sax nit ñi dañ koy namb mm-hmm. daan ne na na kilifa gi génn mm-hmm. wax. donc tour de communication tu la communication ay carcan la jangal à l'université certes c'est vrai certes bon ci mm-hmm. cours yi la bok mais aussi il faut pas avoir peur hein de réinventer certaines choses voilà te te te boo gisee lii la ko jural ñun Sénégal suñu président barango nga koo dégg mooy 4 avril 31 mm. décembre. Mm. te n'est mm. pas normal. chaque mois wala chaque semaine war na mën a génn wax ak nit ñi bu benn fait mais pourtant vous koy def si conseil des ministres. non non wa waxut ak sénégalais yi. Euh, waxut ak sénégalais conseil des ministres ay ministres lay wax. alors alors Diagne dañuy ñëw exactement si boobu rek gasa gasa ba parce que si père ngol-ngol bu de civi jàpp na ni képp ki xam ne war a réew mi éliminer la exactement. bi ak rebondissement yi nga xam tam. dina ko si amal est-ce que si c'était à refaire je pense que c'est loolu du ko si c'était à refaire dañuy gasa gasa parce que aussi Sénégal ni ni muy doxee mais ça moo ne euh, moo acte violence rek gasa gasa bi la ñuy indi. parce euh, collé ko motif. non il faut nga comprendre violence bi jógewul ci. passif hmm. ak ak parti hmm. ak parti allié passif. violence bi hmm. ñoo koy subir. té il est temps que ça cesse loolu la ñuy wax gasa gasa moy il est temps que ça cesse manam yow bo ma mbéjee. manam ñoo jàpp ni saga la. ñu japp ni non euh, non gasa gasa du saga c'est-à-dire nit ki li ñu koy tek pour ñu wax la li ngay tek nit ki baxul il faut ñu délo la ko yow est ce que comprendre daa mel ni sa doom. sa doom bi góor benn moromam mais euh, œil pour œil dent pour dent. waaw. sa gokh la ko waxe sax ci keur Moussa Kër effectivement œil pour ay dent pour dent ni pare na pour Macky Sall rey ko wala kon moom euh, yu fii dal di meuna li nga xamné ne modi li. est ce que euh communication bobu non Ousmane Sonko war na meuna tenir. Mom laa la expliquer gis nga ay jeunes rek daal di koy top. Deglu ma yow sa dom wala xalé bu ne ci koñ bi wala ci keur gi di doré. pour nga wax ko ni baaxul. bu hmm. doré nit. Hmm. nit xalé bo mu dóor. Hmm. da ngay wax ni ko fayul mu xol mu sentir ni. ki mu dóor nim ko doré ndeka metti na parce que aussi nit ñi dañuy wax euh, dañuy wax benn wax bu ñu dul seetlu. Mm, mm, mm. xam bu ñu déggee ne euh, fitna baaxul. c'est c'est c'est vrai fitna kenn du ko yee. Cheikh Omar Foutiou. Cheikh Omar Foutiou. radiyallahu taala anhu. gat sa gat euh, astafirullah nu mu tuddati dafa jàngale. fitna baaxul. moo ko jàngale moom. parce que sëriñ daara la woon. moo ko jàngale ñëpp ne gat sa gat sa. maanaam fitna baaxul moo ko jàngale. est-ce que comprendre nga. effectivement ne jàngale ni fitna baxul ba pare parce que jàng nako ci xadis yi. Hmm. je ci ay ba pare mo mais la mo mu tal c'était pour restaurer l'état de droit. Madame, Amna ay moyens yoo tollu combat. Euh, combat la dafay le inévitable combat amna tollu nécessité lay donne hmm. mu hmm. ñukay neewal dafa jël njabootam rawale mais est-ce que combat bi toll fu toll ni bañ mais mais. en fait yo, yo kon xanaa nekkoo Sénégal. Ni Sénégal. Yo, <laughs> yo, euh, euh, yow nekkoo Sénégal nii ñi ngi bind des infos mais. Macky non non yo yo yo euh, nekkoo situation bi le pourquoi mu toll len fofu non c'est à dire le pourquoi mu toll ñu fofu c'est à dire yow bul gis la personne de Ousmane Sonko boko ko rek moi c'est à dire yow amo setlu hmm. long xam xam nga lo nga xol hmm. le projet bi Ousmane Sonko ak Pastef di hmm. déroulé loolu ngay xol le projet di Ousmane Sonko ak Pastef di déroulé moy fexé ba libérer sénégalais fexé ba sénégalais bi di faju fexé ba sénégalais bi di jang fexe ba Sénégal bi di lek yaa ngi dégg fexe ba sénégalais bi moom boppam parce que le professeur Kizerbo euh, euh, mu mu ngi mu ngi expliqué nii. Hmm. Euh, Afrique problème bu mu am yëpp du problème hmm. économique. Hmm. problème bi Afrique am mooy problème mu indépendance boppam souveraineté tant que nit ñi moomuñu seen bopp développement du leen yomb te développement muy commencé nit moom boppam parce que boo moomee sa bopp yow yaa xool sa dëkk lan moom mooy priorité cest dëkk lan nga fa wara doxal ak lo fa warul doxal. Hmm. mais tant que ñun amuñu souveraineté bobu dara du hmm. dem té hmm. le combat de passif, c'est ça la souveraineté appartient au peuple sénégalais d'abord bala ñuy wax kenen té ñun suñu njit yi fi né dafa melni kenen lañuy xol ba avant ñuy xol Sénégal. Euh, euh, euh, on poursuit donc justement suba ñu ngi dem le si jour bu décisif si ki nga xam Ousmane Sonko. Mm-hmm. li février après ba le 6 février le 1er février on dit un qui ki xam Ousmane Sonko. Mm-hmm. décisif ki xam Ousmane Sonko franchement lan ngay xaar vous wu bon de toute façon nous on est serein on est serein wax dëgg yàlla justice woote les avocats sont là. di ngeen wuyu ji bii pas. non les avocats sont là. dinañ dem bii pas xanaa xanaa doole ali bi. non non bu ne passé avocats yi dem nañ. avocat yi dem nañ bu ne non convocation. non jot nañ jotuñu après nga laaj avocat. yi il faut les appeler après nga. nga <laughs> woo leen nga nee na jotoo leen. waaw bu ko waxee kon jotuñu ko mais mais woole avocats yi nga laaj leen ce qui est sûr est que. les ah. avocats sont là pour défendre notre leader Ousmane Sonko inshallah, mm. mm. et ils le font très bien macha alors si loolu euh, est-ce que yéen si xaar benn suite bu favorable exactement euh, jëm si li nga xamné ne que moo di taxawaay yan ak wàll bu ci si digganteeg Mame Niang ki nga xamné ne que moo Ousmane Sonko. xam nga xam nga nit moom boo tooñul doo tiit. tooñoo leen. boo tooñul doo tiit ñun ñu te ko nit ku tooñul du tit mais Ousmane Sonko mi waxoon IGE mo taxaw ni dama joom IGF la. comme que nee Ousmane Sonko mi waxoon IGE mo ni dama joom IGF la kon tooñul d'autant plus que rapport bi. mais ba léegi diffamation parce que fi jàll na. si non non d'autant plus que nit bind na ci livre est-ce que xam Ousmane Sonko convoqué nañ ko dig diko déglu dem na mm, mm, mm. dem na ba dégg ñu déglu ko te te kenn dégg ko c'est-à-dire justice ñun nous sommes des justiciables bu justice woote dañuy wuyu mais boo déggee ñuy wax dafa am foo xam ne bu fa tolloo c'est très normal nga résister parce que nit aussi mënul utiliser justice. Hmm. di def lu ko neex. Hmm. di dóor di hmm. di bummi. te te te te le le le paradoxe dans tout ça. Euh, Macky Sall moo la gën a xam ne justice am na problème mais bëgg ko réformer parce que assises nationales yi bañ ko taxawalee moom gis na les résultats des assises nationales. xam na liñ ci wax xam na lépp justice nan la ñu waroon doxee ba jëyanti ko gis na ko mm, mm, mm. gis na ko ses alliés du PS gisoon nañ ko waa AFP gis nañ ko ñoom ñëpp gis nañ ko mais ba mu toogee jéemu ci dara juge dem la moo tax mu démissionné parce qu'il a dit qu'il démissionne d'une justice qui a démissionné. c'est-à-dire ñun loolu waxuñu ko juste de ñu instrumentaliser avons dit que nous avons dit que Nous avons balaa ñun ñu koy wax. alors euh, Diagne euh, Sonko peut-être Inch'Allah, inshallah. euh, topé topé formation formation, peut-être nous avons topé recel de documents administratifs donc Sonko euh, risque lourd pour demain. Sonko ne risque rien Sonko. mais recel de documents administratifs il le derrière Sonko. il a le peuple derrière lui. Sonko dafa am bàjjan si euh, si euh, si euh, si dëkk bi. no daa mel amul bàjjan moo tax li koy dal di ko dal bu amoon bàjjan kay li koy dal du ko dal <laughs> mais amul bàjjan mais il a le peuple ah, derrière lui. Sonko mbiram ak Adji Sarr jeexagul mi. non circulé si dëkk bi nii. no mbir mbir non mbir mi jeex na. bu yàgg mais c'est même que si moom si moom mais moom que si moom boobu prérogative. muy circulé ci naka. Euh, si dëkk bi te mbiram ak Adji sa jeexul te euh, chambre criminelle la ko war a yóbbu exactement te mu si wàllum dëkk bi mais si nekkoon euh, Sénégal lambda bi la ba léegi nëbb nañ ko. non parce que ñoom ñoo ñoo la gën a xam ni. Mm, mm. foofu dara amu fa. Mm, ñoom seen bopp ñoo la gën a xam ni foofu dara amu fa. parce que parce que justice maanaam boo xoolee chronologie des faits ni mu demee.

IGF bala mo def parce que qui qui lapsus lapsus mais il a insisté là-dessus. non non non parce que si wax trois fois. il a mais lapsus mais lapsus trois fois. ko quatre fois lapsus plus que ba muy lire lire hmm. wala hmm, ci hmm. ci ça veut dire que est ce comprendre nga voilà Sonko il a le peuple derrière lui les Sénégalais sont derrière Ousmane Sonko te projet bi kenn mënu ko kenn mënu ko stoppé inshallah manam ak quoi qu'il en dit décision bu justice même su nekkee Mame Mbaye Niang mom deug Sonko la euh, les. Sénégalais non Mame Mbaye Niang am deug ci kaw Sonko nan la am deug ci kaw Sonko. diffamation. non mënul nek parce que xam nga motax mais IG ak IGF. non <laughs> mais lol diffamation. <laughs> mi ngi si loolu rapport bi moom cité. loolu léegi do rapport bi euh, ben, ben rapport même su nek fii am na sax diffamation la. mais mais yow te Mame Mbaye Niang laas laas na ko def nee ko indil rapport bu la neex. yow bo nangoo ni rapport bi mo la bo nangoo ni rapport bi mo la cité yow sa sa ngor sax warul won mayee ngay ngay top nit ci ci da nga diffamer mais Mame Mbaye Niang laas na ko euh, défi nee na ko indil rapport bu la neex. Mhm. mais rapport bi paraît que amul signature ba paré kenn reconnaître ko donc est-ce que Ousmane Sonko nekkoon il a été piégé euh, de par sa communication exactement. non non non faut pas faut pas dire que il a. il a été piégé de par sa communication. parce que c'est trop de communication il communique trop. moom il communique trop il le il le doit parce que askan bi xam nga askan ki lay jox. Hmm. war nga wax ak moom. Hmm. ñun suñu autorité yi dañ hmm. leen di jox. di leen jox auto bi ñuy dawal di leen jox kër gi ñuy fanaan. di leen assurer bu ñuy faj suñu xaalis lañ koy defee te ñom duñu rendre compte. est-ce que tout ça normal autorité sénégalaise duñu communiquer ci ben fait duñu communiquer ci ben fait te lolou du yoon dëkk bo ci nekké nga nga jité nit ñi. da ngay génn li intéressé waa dëkk bi ngay wax ak ñoom ci loolu ñun looloo ñu manqué au Sénégal te Ousmane Sonko boo gisee nit ñu topp ko c'est parce que day wax ak ñoom ci dëkk bi ci li ne. te te ba mu waxee ba léegi kenn weddeegul li muy wax. alors euh, ñu gis ni euh, ki nga xam nekk moo di ba léegi rek ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Birame Seck daal di génne woon boobu de li nga xam nekk moo di euh, yëf yoon topp ko Ousmane Sonko yoon nag daal dina koy topp jëm si nga xam nekk moo di yëf yi est je commence depuis que créé le parti passif.